Diouf moo nekkoon invité ca Faram Facce janoo woon ak Papa Ngagne Ndiaye ñu daldi koy posé boobu lépp question ñeel Ousmane Sonko ndax war naa mën a bokk am déet ndax ci lu ñeel wàllum yoon am na lu ko tere bokk moom docteur Abdourahmane Diouf lii la daldi tontu AGT News. man de juriste bi ma doon. peut-être nag aw ma dëgg mais juriste bi ma doon li ma gis mooy dem na procès ak Mame Mbaye Niang procès boobu condamné nañ ko mais procès boobu voie de recours jeexagul. ba condamnation bi c'est pas une condamnation définitive loolu mënu ko teree nekk candidat dem nañ ci procès ak Adji Sarr man de li ma xam tuuti ci droit peut-être nag maa juum yàlla rek a xam d'accord lu ma ci ak Ismaïla Madior Fall li mu wax pour man jàpp nañ ko mooy nekkatul contumax te bu dee nekkatul contumax mooy àtte boobu amatul te bu dee àtte boobu amatul terew ko nekk candidat muy ñaar ñetteel bi nga xam ne moom lañ ko téye tey yóbbu ko kaso dafa doon loo xam ne kenn atteegu ci atteeku ko ci donc présomption d'innocence la am donc muy benn ñaar ñett yoo xam ne ci droit gisuma dara lu koy teree nekk candidat donc pour man te dama ko bind li ma wax nii mhm. dama ko bind mu ngi sama page Facebook mu ngi sama communiqué parti loolu laa gëm c'est le que j'en fais li ma ciy dolli loolu lañ tijjee émission bi mhm. man maa ngi dund samay injustice am na yenn opposants yoo xam ne ñu dund injustice Ousmane loolu lay dund président Macky Sall nag moom moo war a fexe tijji jeu bi ba nga xam ne sénégalais yi ki ñu bëgg la ñuy tànn. AGT News ñoo ko déggandoo kon nag ñett mbir yi nga xam ne yëpp moo tegu ci kaw Ousmane Sonko amagul ba tey jilee benn boo xam ni moo koy teree nekk candidat ci élection présidentielle yu atum 2024 wàllum contumace bu fekkente ne dal dinañ lay jàpp ñi nga xam ne ñëpp ñoo ci àdduñu ci bëree bëri ci lu ñeel wàllum justice ak droit la ñu wax mooy Ousmane Sonko atte bi doxoon ci digganteem ak Adji Sarr na sax na konteetul te ba noppi itam moom bind na aw bataaxal jagleel ko greffier bu Dakar xamal ko ne ko def na la ñuy woowee acte de non acquiescement maanaam d'accordul ca nañ ko àttee ci digganteem ak Adji Sarr ba tey jile moom Ousmane Sonko ñàkkagul bokkam ci élection présidentielle yu atum 2024 bu ñu demee ci dossier bi nga xam ni moo dox ci digganteem ak kii di Mame Mbaye ci mbirum Prodac ndax nag boobu lépp dossier épuisé gul voies de recours yi nga xam ne yëpp moom la ñu daal di am faw rek décision bi nekk lu définitive ngir Ousmane Sonko daal di mën a bañ a bokk ci élection présidentielle yu atum 2024 yeneen yi mbir yi nga xam ne itam moom lañ koy toppee ba waral jamono ji mu nekk ci kaso bi loolee faw ñu dem procès atte ko moom Ousmane Sonko jaar itam ci instance yi nga xam ne yëpp mën na fa déposer ay recours ba lépp daal di définitive moom Ousmane Sonko ñu daal di koy génnee ci ñi war a bokk ci élection présidentielle yu atum 2024 te loolu yëpp xaju fi fii ak 2024 élection yi ñu daal di koy mën a amal docteur Abdourahmane Diouf mu ne d'accordul benn yoon Déthié Fall ci bi nga xam ni mooy coow li ci réewum Sénégal te ci loolee mën nañ ci éliminer Ousmane Sonko ci course bi nga xam ni ca lañ daal di nekk vers la présidentielle mu nekk lu yéeme lool lu day waar ndax bari na ay ndaw yoo xam ni ñu ngi ci réewum Sénégal lenn rek la ñuy sàkku muy bokk Ousmane Sonko ci élection présidentielle yu atum 2024 moom docteur Abdourahmane Diouf wax na ko mu ne faw ñu am élection yoo xam ne day démocratique sénégalais yi tànnal seen bopp ki nga xam ne mooy nekk le cinquième nekk élection yu neex lool boo xam ne moom jàpp na ni du am benn favori ndax sénégalais yi ñooy tànnal seen bopp au lieu que ñuy nekk ci dynamique wu folli président ba nga xam ni moo fi nekkoon ba noppi. kon nag chance le sénégalais yi am ngir tànn pour une première fois ki nga xam ni mooy nekk seen président te du am keneen ku leen di gêner ngir ñu daal di koy éliminer kon képp koo xam ne rek war nga cee mën a bokk nañ la bàyyi nga participer ci bu ko defee ñu amay élection inclusive yu mucc ayib yuy mën a tax daal di wax ne réewum Sénégal gile réewu démocratie la réewum état de droit la réew la moo xam ne àq ak yelleefu doomu aadama yi dañ koy respecté te ba noppi itam le choix des sénégalais dañ koy bàyyi xel ndax nag kenn umpalewul ne Ousmane Sonko bëri na mbooloo moo xam ni moo topp ci ginnaawam ñoo ñooñee ñëpp waroon koo sànnil carte tey jile faw ñu daal di leen bàyyi xel te nag langum politique gi jamono ji bëri na ci ñoo xam ne ñi ngi ci nekk honnête lool di wax dëgg comme docteur Abdourahmane Diouf te mbir mi jongante la ku mën sa moroom daan sénégalais yi ñooy attee kon képp ku bëgg samp saw ndënd nañ la bàyyi nga ñëw ci diggu làng gi teg ko fa bàkku daal di bëree bu ko defee sénégalais yi tànn ki nga xam ni moom la ñuy jiital dugal ko biir palais ngir mu nekk suñu cinquième président de la république du Sénégal AGT News. Un petit résumé en français docteur Abdourahmane Diouf a tenu des propos durant l'émission Faram Facce en disant que Ousmane Sonko et toujours éligible, il peut bel et bien participer à l'élection présidentielle de 2024 car aucun des trois dossiers judiciaires qui pèsent sur lui l'empêche actuellement d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Premièrement, concernant Adji Sarr, il a été jugé par contumace. Donc du moment où il a été arrêté, selon lui, docteur Abdourahmane Diouf, Ousmane Sonko voit la décision de justice prise lors du procès Sweet Beauté anéantie car étant le contumax retrouvé en plus de son acquiescement adressé au greffier du tribunal de grande instance de Dakar qui devrait marquer l'anéantissement de la décision de justice entre Adji Sarr et Ousmane Sonko. Deuxièmement, Mame Mbaye Niang, les voies de recours ne sont pas encore épuisées. De ce fait, Ousmane Sonko reste candidat jusqu'à ce que cette décision soit définitive. Troisièmement, concernant le dossier qu'il a amené en prison actuellement, toutes les voies et recours ne peuvent pas être épuisées d'ici l'élection présidentielle de 2024.

choisir librement leur président sans pour autant qu'il y ait une sélection et ni pression de renverser le président au pouvoir. Il s'agira tout simplement de donner l'occasion au Sénégalais de choisir librement leur cinquième président de la République du Sénégal qui va remplacer le président Macky Sall en 2024. AGT News. AGT News. AGT News AGT News AGT News AGT News